asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xam naa bala wax ci ndigalul sëriñ bi damay wax ci ndigalul sëriñ ahmadou rafai ibnu cheikh mohamadou fadil al imaamul xatib di ko jéggalu ci kàddu yi ñuy wax ci wetam kon ci turu cheikh mohamadou muntaxa alxalifatul am lil muridi xafidahu llahu wa raa ñu ngi yëkkati kàddu yu cant ak ngërëm di ko jëme ci suñu doom gi tedd yi taxawal liggéey bi te muy liggéey bu am solo sëriñ bi kon ñu lay siyaare bu baax di la sant di la gërëm ci teewaay bi waaye di la sant sa taxawaay ci yoon murid yépp li ma la koy waxe ndax ma marista wax ne bokk nga ci zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu bokk nga ci sëti Serigne Touba yi nga xam ne boo ëllëgee Serigne Touba da leen di puukaroo ndax saw doxin ak sag doyloo Serigne Touba ak jëlma nit ñi te teg ko ci dëgg kon ñu ngi lay ñaanal bu baax nga yàgg fi te ànd ak wér te li ngay taxawee ci biir yoon wi itam nga yàgg ko taxawee di nuyu mboolem kilifa yi fi tedd yu tedd yi fi teew borom xam-xam yépp di leen sant seen taxawaay ci gindi gi ñu gindi nit ñi ndax falaw laa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li fi diini kon yéen matal ngeen seenu sas ci loolu di gërëm rek suñu doom yu tedd yi nga xam ne ñoo taxaw liggéey bii muy liggéey bu yéeme boo xam ne daaw jéeg ndax dama amoon gànt waaye daaw jéeg ba nag mu ngi des ci sama bopp des ci sama xel waaye tey jii nag moom dama nekkoon sax ci ndigal waaye sëriñ bi dama pini ci jotaay bi waaye nag rëccuwuma ko ndax lu ma jugoon dem di ko doxi rek li ma fi dégg ak li ma fi yége moo ko ëpp ci woon foofu kon ñu ngi leen di jottali cantu sëriñ bi ak ngërëm wax naa sëriñ Ahmadou Rafa yi léegi ne ko jotaay yu mel nii de war nay gën yaatu ci dëkk bi ma ne ko li Cheikh Mahoudou gën a dund sëriñ bi te dooloo sëriñ bi jotaay bokk na ci di koy gën a firndeel ndax lii ku ko fekkewul mënisera koo nett li ba sam xel mën koo xalaat waaye itam li ci ëpp solo mooy waneen Serigne Touba ak defaram daa tàmbalee ci mujj ga di ñëw ba tax lu gën a mujj rek gën a gën a baax gën a gën tegu ci yoon ndax ku leen gis ñoom fi ñu toll ci at seen xel seen xel waroon a nekk ci leneen walla ci feneen waaye ñu bàyyi lépp xam ne lii mooy ndono li xam ne lii mooy bëggu Serigne Touba ñu bàyyi lépp nekk ca looloo leen may lii kon nag lii. wa fi saalika falyatanafasi mutanafisun Sëriñ Tuubaa lii lañu fi bàyyil lii mooy ndongo li nga xam ne kanzul kitaab wal xadiis wal adab laa jamhu fiddatin wala jumhu saab ci lii lañu ñu doon Sëriñ Tuubaa kon ci tuuru sëriñ bi maa ngi soññ mbooloo mi nga xam ne ñooy ndaw ci ñoo ko mën a tuddee ñu gën a góorgóorlu ci jëf yu mel nii ndax xam nga ne kat àdduna soppiku na ndax defar jafewul naka jëkk ndax sëriñ bi ñu sañc dëkk bi dafa wax ne li tax ma sañc dëkk bi mooy ñaar daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi kon naka jëkk bala nga mën a defar nit faw nga ne safeet ba sol nit ñi man leen faa defar mboolem jabarug sëriñ Tuubaa gi ak mboolem ñi sëriñ Tuubaa defaroon dëkk yi ñu sañc yëpp ne safeet man faa laqatu ba defal fa nit ñaa tax léegi nag àdduna dafa sopp ko ndax boo demoon ci àll ba gën a sori ñaar téeméeri kilomètre nga gor fa sànc fa mbëkk itam téléphone yi fekk leen fa kon defar dafa gën a jafe te kii toll ci dugg adduna xàmmeegut lu baax ak lu bon xàmmeegut li mu war a jariñoo ak li mu war a jariñoo kon nag li ci ëpp solo rek mooy fexe ba ñàkk jot ñàkk jot ba jot yëpp mu jëmale ko ci jéem a xam lu mu nii gindi ko ci mbirum Sëriñ Tuubaa gindi ko ci attal islam yi ni ko sëriñ bi waxewoon ci ay mbindam ne maa leen digal ne danaa leen taalifal téere yoo xam ne lépp lu leen war ci seen diin la ngeen ko xam kon na lii wane na ne Sëriñ Tuubaa li mu wax na suñ borom moom loo na ko alxuraan ci lu mu nii lañ ko war a wane ci lañ ko war a wane wax naa ko fii démb ndax dëkk boo xam ne am na ñaari junni daara loolu amul fenn ci àdduna waaye xasal yi itam alxuraan amee seen Tuubaa xasaayit jëfi seen Tuubaa waaye itam xasaayit yi de mënuma na loolu wane na ne it ñu wane na ne yéen ay kon nag rek le Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon na ma ku ñuy wax ko fekk ci ko ay kàddu rafet nee na ba mu jeexee suñu Bassirou ne ko moom de li ci am solo mooy lii ñu wax ci bu fekkee mu ngi ci yow rek na ba sax ca bu nekkul ci na nga fexe ba mu nekk ci yow kon yéen itam ci ndigalu Cheikh Ahmadou Rafaay yi ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi leen ci soññ ngeen gën cee góorgóor te gën koo yaatal gën a yaatal liggéey ndax lii moom war na sax nekk at mu jot xamul woon koy defe waaye lii moom war naa gën a yaatu ba àdduna sëpp di ko fekke war naa gën a yaatu ba yoon mu yëpp gën a xam lu mu doon ndax man ñi kat maa ngi ko doon ànd ak yéen ndax yéen li ngeen doon ci ñun waaye jotaay bu yàgg bi ma fekk li ma ci waxee am du le du lees bale misaal kon nag gëm naa ne daa bokk jëfe suñu Tuubaa nangu kon nag yàlla ngeen ko yàgg def yàgg ko ànd kilifa yi te yàgg ci gën am ndam yëpp yi ngeen ci amoon nii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. taamu leen Tawfekh production ngir lépp lu jëm seen a site internet wala en différé ba ay écran géant lépp luy lumière Tawfekh production moo fi nekk moo fi mën ah mbokk pour votre actualité en temps réel Tawfekh production moo ci mën ak personnel bu xar